premier ministre gars yi nee nañ euh, dem na ci kilifa diine yi kat euh, dem na fële ca Touba. Mm-hmm. Euh, seen nga ko mu toog ak alxalifa Cheikh Mouhamadul Muntaqa mm-hmm. dem fële ca Tiwaawoon. Mm-hmm. ñenn ñi nag tudde nañ ko daa topp tànki jomaay. ñenn ñu wax ne législative yi lay waajal. man nag ma ne Maodo waaw man ab diir ci ginnaaw man mii rek en personne. ay nit daan nañ ma woo di wax naan bu fekkente ne yéen a ngi jot waa ji tee ngeen ko wax mu dem seeti sëriñ si tee ngeen ko wax mu def nangam mu xëy suba dem seeti ay kilifa ñu bokk ci réew mi war leen a seeti am ñoo xamante ne geneen wet lañ koy gise am ñu ko gisee neneen loolu noo koy jàggate mooy réew mi lañ war a ndëppal réew mi ci boppam moo dof Sénégal ci boppam doo xam sax yow looy wax hmm. Ousmane Sonko lim def lan moo ko gën a normal lan moo ko gën a naturel c'est-à-dire que rien rien d'extraordinaire te amul benn folklore amul Mumbaay amul protocole dara Mbacke hmm. nañ nañ waxante dëgg xanaa xanaa Mbacke xanaa Ousmane day door dem Touba mosu faa dem. ah kay mos a dem ba ca Baye Fall. ah kay mos a dem ba toog fa <laughs> est-ce que c'est pas est-ce que c'est la première fois mu toog ak sëñ Mountakha. déedéet waaw waaw léegi kon léegi lu ñu ciy wax. dara Diomaye demul ah, dem a yeex na mu am fay door dem. da xam programme Sonko ba naan yeex nag. déedéet damay laaj. ah waaw kon kay li nit ñi wax laay wax ma yow it xamoo programme am. non yow wala xam programme am. non mais damaa wóor ni état wóoyeful. Ah, te am na looloot kay mën naa koo xalaat. waaw waaw defal ndànk rek xam nga Ousmane Sonko li mu def. Hmm. c' est dans l' ordre normal des choses. Hmm. gisuma ci commentaire. Hmm. benn c' est le premier ministre du Sénégal. un de deux moom la tax mu seet leen gannaaw yàlla ak yonent bi ak ñam waxal. ku mu ko nettaliwul xamoo ko ak président de la république nañ maandu. la ko yëkkati ku mu ko waxul xamoo ko gannaaw moom ak jomaay. xëy na avec son gouvernement. génnu def déclaration. waaw waaw ne ñoom Ousmane Sonko bu gasee ñu suul. Hmm. mooy la ma waxoon ne am na ñoo xam ne contre ñu régime beeg projet bi Ousmane Sonko lañ mënta digérer. kon loolu dafa am ci réew mi moom. waaye du jeex nga naan asaka Sénégal. ma waaw léegi nooy dégg ñi nga xam dañuy day mel ni ñoom daal di wane ne Sonko moo moo kii. ma ma mooy ñooñu boole leen ci rang bi xel mais gis nga loolu yàgg na ci àddina nag. Hmm. gis nga sax yàlla nañu yàlla musal sax ci ku ñëpp bëgg. Hmm. asgor sax ñëpp ñu ko bëgg. waaw góor pire. soxlawul ñëpp bëgg ko dëgg la góor piir bala mu nekk piir hmm. góor piir day amee nekkal ci li nga war a ne nekk ci li nga nekk rek nit na la bañ waaye bul def lu mu lay yebe yow sa yoon nekku ci léew fam lay fam laan lay xaar bu mu la fa gis hmm. hmm. yàlla jox ko réew mi ak circonstances yi ko yàlla jox li yàlla joxe réew mi ñoom ñaar parce man bu ma bu may wax jomaay mooy Sonko ma déedéet dama naan kii gis nga li xew ci Sénégal gii 1960 la Sénégal am indépendance. Mm-hmm. li Ousmane Sonko def sur le plan courage politique. Mm-hmm. sur le plan idée. Mm-hmm. sur le plan programme. amul benn politicien bu ko def ci Sénégal. oui nañ nañ ma wax kan la ma wax la histoire wax la ma comparé tàmbaleel ca Mamadou Dia ba tey bu nu ko wax maye kenn ku ci nekk ma wax la lu mu def wax la. programme lim def kenn mësu ko def. lim combat bi mu def. Mm. Ablaye Wade def na lu nekk mais ni Sonko def Ablaye Wade defu ko. ak li li bayre bi yàlla jox Sonko ak mou mouvance juvénile bi ko topp. Mm. ak masse bi ko topp. Mm. Abdoulaye Wade amu ko woon. Mm. ku ne ku ko weddee rek na ñëw ñu demaat ci image yi ñu xool. d'accord waaw léegi kooku Ousmane Sonko fi mu nekk moo fu moo fa. yóbbu bopp loolu topp ko. waaw defal ndànk rek moo fa yóbbu bopp wala yàlla ko fa yóbbu. <laughs> yàlla ko fa yóbbu. léegi lu tax duñ nangu dogalu yàlla. neel benn benn ñaar. Ousmane Sonko mu dem Tiwaawan nekk premier ministre. Mhm. te masoon naa ko gis lu jiitu loolu mu dem toog ak Serigne Babacar Sy Mansour. Mhm. tey delluwaat na dem fa waxtaan fa. Mhm. te lam fa wax luy jariñ Touba la ak Tiwaawan dafa pro est-ce que dafa wax njariñu boppam moom. da ngaa dégg mu ne Serigne si jàppale leen ma. dégguma dara ci li mu wax. waaw waaw léegi kon nit ñi lu tax duñu maandu. Ousmane daal li bu li wolof naan gàcce ngaalaama moom li muy def. Mm. bala ngaa xas nit ki da ngay jaar fa mu jaar la waaja na woon suñ tubaab fa mu jaar ku fa jaar taq ban mm-hmm. fa mënu ko wala waaw maanaam pour wax ne rek nit ki mm-hmm. fa mu jaar yow bala nga koo bala nga koo xas da jéem a def gis nga gaa yu baree bari amuñu fit mm-hmm. fit bi yàlla jox Ousmane Sonko joxu leen ko mën nañu nekk ci keppaar gi naan seen attaay nag di sànni xeer rek mais en ce moment ak coalition Jomaay ñooy jiite Sénégal comme ni ñu dem ci kilifa diine ñu ne dem nañ ci kilifa diine yi euh, gis nga Sénégal ku bëgg ku bëgg li ñuy wax maanaam maanaam yow boo bëggee boo bëggee nit ñi fekk si la ci li nga doon da ngay am problème la waajo woon ca mooy ba boo boo boo waree mbaam mi defe naa sëriñ Cheikh ñu ne lu tax mu wàcc mbaam mi bu góor gi wàccee mbaam mi ñu ne ko da ngaa soxar mm-hmm. maanaam Sénégal bul déglu yow ñu wax la lu baax ak lu bon sëriñ Abdou Lahad Mbacke sama waa ji naka lan faral di wax bu nettali naa ko ba tey nee boo nekkee ci dëgg yoonu dëgg hmm. nee dërlu rek bul geesu bu yàggee lee nga am mbooloo d'accord ku am ku nekk dëgg dana la fekk si mais yow Ousmane Sonko lan lañ ko waxul fii salafiste la hmm. am na benn kenn ko bokk ci ñun taskatu xabaar yi ah waaw ne ne pexeem bu jibee waa Touba lay njëkk lay njëkk a faagaagal déggoon naa fi loolu waaw te lay tey Touba la gën ci la ba noppi nag am ci ay député ñoo xam ne ay sëti sëñ Touba lañ Cheikh Thioro Mbacké ko baax moom ba damaa jubal dama damay jaawale ñaari kii moom Baye Cheikh Khady mais maa ngi moom ñoo ñoo jàngandoo ñoo jàngandoo arab a ku mën a defar ak bokk ku mm-hmm. mën a def lu baax mm-hmm. moom dafa nuru papaam dëgg la léegi sëñ Abdou Mbacke moomu ku ko gën a jege sëñ Touba wax nga ma lu ma neex ah na ma trop ah, a xam sëñ Abdou man man au moins mën naa ne maa moom ñoo bokkoon école yow jàngandoog moom ba topp wax ma ci moom wax jooju loolu mais parce que damaa jàngandoog moom gis ay jikkoom damaa bàyyi daanu jël mais ko damay daanu damaa gis ay jikkoom gis màggal gi muy def ci euh, fële ca Daaru Muxti waaw gis tamit taxawaay bi mu ci def te xam nga. ak ni mu yaatale nga xam ne nit rek la xam. moom moom xamul murit ak tijaan. Mm-hmm. sëñ Abdou moom yàlla dimbali na ko ci loolu. yoonam nekkul ci loolu. moom li li nit ki te gis nga nag mën na laa fab yow. Mm-hmm. moom sëñ Abdou Mbacke. Mm-hmm. ju présenté la benn borom alal. te moom yoonam nekku ci lu mu la du maanaam moom li bëgg rek mooy na sa mbir na sa mbir dox yow. mais loolu loolu du loolu du yëfu gar na. waa kooku kooku moog Sonko dañoo te Abdou Mbacke am na fu la ju toll joo xam ne ju toll na joo xam ne bu ko wóoral Sonko dafay xeex lu jëm ci sëñ Touba du ànd ak moom sëñ sëñ Thioro Mbacke bi euh, yi mu teg day mm-hmm. xeex ak mouridisme mm-hmm. duñu ànd ak moom gars yi nañuy waxate xel te bañ di wax ak xol bañ loo bañ bañ bañ moom bay rek bëgg naa nga conseiller ma ko moom itam xale bu jàmbaare bu mais Cheikh Thioro barki dem rek woo barki damaa nekk ci yoonu Touba bi sëñ Maodo mais xam nga problème bi mooy Ousmane Sonko li mu def gaa yi defuñu ko. Mhm. li mu mën gaa yi mënuñu ko. te mhm. kat kaay ma xamal leen de coow la fi nekk mais dàquñu koo jàng. Mhm. ëpp ñu ko xam-xam mhm. gis nga ñii naan Ousmane Sonko nangam ak nangam xaaral ba mu def discours général mhm. danaa la ko firil ci wolof loolu moom kañ la koy def ah daan waaye ko nga naan wax rek a ñëw de te nee woon loolu mhm. man loolu bon parce que loolu du problème président groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar Abdou Mbow Euh, da koo bind euh, lettre. Hmm. boo xamante ne daal mi koy fàttali ba muy nekk opposition lim daan wax ci wàllu immigration clandestin ak liggéeyu ndaw ñeeg nangam nangam yan taxawaay la ci war a am noo jàngate jolla sante boobu dox seen diggante. xam nga Abdou Mbow moom day sama waxee quoi ba nga xam ne sawaruma sax ci wax nag sama xarit la nag. wax dëgg yàlla ah, ah. Abdou mais bu hmm. lim lettre bi mën na ko bañ a bind. Hmm. premier ministre. ma def ko question écrite yóbbu ko assemblée lan moo tax mu ciblé la premier ministre un de deux moom mooy euh, cent dix huit milliards mm. ci jamono yi Macky Sall waaw def nañ ko ci immigration clandestine bii mm. wax nañ ne def nañ ko ci non mais chiffres yi laa lay jox ah d'accord chiffres yi cent dix huit milliards kay su ma koy dama am chiffres yi moo tax waaw téeméeri milliards ak fukk ak juróom-ñett ki nga xam ne moo jiite horizon sans frontière di Boubacar Seye waaw looloo tax looloo tax mu demoon kaso mm. dafa dem union européenne parce que immigration clandestine bi ci jamonoy Macky Sall ñor union européenne ñoo ko financé. maanaam Abdou Mbow mii. jamonoy euh, nguur gi mu bokkoon. waaw kay euh, maanaam njaati géem. waaw ak ak ak i farandoom. waaw ñoo doon def lii ngay wax. waaw ñoo doon def boobaag léegi ñetti weer la. te boobu te ñoom lañ doon financé. te ñu mm. xoolal te ñoom lañ doon jox xaalis bi. pour mm. ñoom ñu ñu ñu fexe ba mbëkk mi wàññeeku. Mm. Boubacar Seye bi mu jógee France dem ci benn soxna boo xam ne bii mi ngi nekkoon ci Union européenne ab tubaab la mu jox ko chiffres yi ne ko Sénégal ñun ñu ngi fay dépenser tant dans le ci guvernement président Macky Sall pour ngeen xeex wàllu kii bi te moom ci yooyu ci dox xam nga Horizon sans frontières. Mm-hmm. mu mu mu mu bind ko wax ko mu ñëw aéroport ñu jàpp ko. Mm-hmm. ci jamonoy Macky mm-hmm. moo tax Boubacar Seye moomu di wax naan ñun victimes yi nañu jëli Macky Sall ñu ñu àtte ko. waaw waaw léegi booba booba fu Abdou Mbow nekk. booba fu Abdou nekk. Abdou te nag beneen beneen bi ci tegu. Hmm. immigration clandestine xam nga fan la hmm. tàmbalee. Hmm. depuis Abdou Diouf. ca Abdou Diouf la tàmbalee amoon na fi Senghor tuuti la woon mais Abdou Diouf. après président Abdoulaye Wade ñëw mu xaw a yokkee ko tuuti. bi Abdoulaye Wade jàllee président Macky Sall ñëw affaire ba gën a yolleeku. waaye léegi dama ne bii maama moment yii. le député qui a écrit fan la nekkoon. yow kii ñëw jëkk ñëw am programme waxugu ko sax assemblée nationale. waaw gul. la jeunesse. loolu loolu loolu lu muy firi. loo yaakaar ni moo tax loolu. loolu politique la politique politicien la lan la. du dara xoolal waxi koo xam ne ki naa bëgg a euh, saboté naa def nangam. kon waxi naka sa xëndëng la. képp wax déet waxu ku daal cib sareet bu sareet ba daanu <laughs> nga ànd ak sareet ba daanu la parce que. mais man moo tax ma ni man man na Ousmane Sonko téye sérénité am. il est toujours serein ah. le gars il est serein. Mhm. Sonko a été toujours serein. Mhm. parce que bi ñuy toj otoom vitre yi. Mhm. noonu mu taxawoon noonu force spéciale tib ko tël tël tël mun a tekk toog noonu hmm. ku yàlla defalul ak dal mënoo ko hmm. atuma niin la ko arab yi di wax waaw hmm. yaa ngi dégg loolu yàlla defal na ko Ousmane Sonko mais léegi nit ñi lan lañ bëgg léegi sëngali nit comme ni ma ko daan wax rek ko ko siiñ ko ko yow doo fi waxee doo fi defee doo fi nangam te Ousmane mosul posé benn acte boo xam ne bi acte bi mu posé lui-même amul asbaab yu tax mu posé ko moo génne woon xale yi nangam nangam Ousmane Sonko daa jékki-jékki dana xale yi génn leen waaw lu tax léegi li li arab yi naan li kulise yin sababun waaw lu tax lu tax lu ñu cause à effet yi lu tax lu ñu ko xool hmm. c'est-à-dire que dara ci lettre bi du ko jur man maa la wax li hmm. Abdou nag bon kon kon xaw tuuti kon nga man a wax ne lettre bi amul sens mais c'est-à-dire que dem di ko bind mooy gàcceel sa bopp hmm. maanaam bind lettre bi day gàcceel Benno Bokk Yaakaar c'est vrai que nag <laughs> Benno Bokk Yaakaar moom ils ah, sont mm, ils sont devenus afol léegi ñiy wax kay mooy waa APR léegi. Hmm. waaw benn bokk yaakaar sax leen wax tooñ leen. d'accord parce que euh, APR ñooy wax. ah wala Abdou mooy wax. Abdou Mbow rek kay wax sax. <laughs> Abdou Mbow mooy wax ko daal. Ah. waaw Abdou